ne da ngeen bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëggee sama programme yëpp ñàkk ko yéexee mais je suis d'accord avec lui parce que nous sommes dans le plus grand département du pays. kon comme ni mu ko defee kooku ba tey conférence dajale fi askan wi moo yegg si ci département de Dakar yegg si fii ci biir Parcelles Assainies jàkkaarloog une jeunesse debout des femmes debout une nation debout pour accueillir des leaders debout. Accueillir la tête de liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko. Accueillir le président de la conférence des leaders, Marie stratège et efficace, particulièrement à base. Je remercie tous les élèves qui nous ont accompagnés du parti. Je remercie Chef je remercie Pacomène, je remercie Mathieu, je remercie Jean-Michel Salé, je remercie je remercie tous les élèves qui nous ont accompagnés. Vraiment, entre là, Mene Souleymane Diop Pador kon Barthélémy Dias wax na leen ko bu ñu bëree fii on a huit heures de temps de route à faire pour doubler incha allah Vélingara suba daa ngeen dégg la tête de liste nationale yàlla ko yàlla mottali ak jàmm ñu adressé wu au Sénégalais depuis Vélingara kon ngeen mën a ne Sénégal yi toll seen liggéey bu ñu toll fekkeelu bu ñu nelaw nekk ci naaj bi nekk ci nawet bi ñaari prise de parole lay doon état moo dégg mu génn puisque may leen ma may leen ma may leen ma deux secondes may leen ma deux secondes Barthélémy Dias le président la conférence des leaders de Yewwi à lui seul. Il personnifie toutes les valeurs, tout l'espoir du Sénégalais am ci Yewwi Askan Wi en termes de dignité, en termes de résistance, en termes de principe, en termes de conviction, en termes de combativité. Man de kii ngeen ci sama wet. Macky Sall teg na ko 32 mois xam ngeen luy 32 mois. xoolal 970 xoolal 970 pour que génne sa àdduna et il est resté digne de peuple il est resté aux côtés du Sénégal il est resté aux côtés de vos préoccupations cet homme mérite le respect de toutes les nations sénégalaises de tous ceux qui nous suivent en direct qu'ils soient ici ou ailleurs vraiment damay bëgg ngeen tas pour ma bopp baax a baax a baax Saint-Louis et qui est encore là ndax tutal lu tax bu gàttal ba jëlul kàddu et dafa am extinction de la voix ba ma wax pourtant ba léegi moo ma tane nit ñi campagne ñëpp transition def ay ñëpp am extinction de la voix parce que campagne bi moo demee noonu moo tax su dee gannaaw bu leen di woo. dañ leen dañuy remercier également l'ensemble des maires du département de Dakar yi nga xam ne bi ñu commencé caravane ba léegi ñu ngi defe naa doyen Cheikh Diop mi ngi fi de Dieuppeul Derklé maire Madiop bu Grand Yoff mi ngi fi maire Moustapha bu Asilem mi ngi fi maire Mbengue Babacar bu Antereer mi waaye tamit seen meeru bopp ci Parcelles Assainies kon ngeen waa Parcelles Assainies yéen am lu rëy ci Yewwi Askan Wi ndax bi ñoo jógee six mois ci gànnaaw ci élection locale Yewwi Askan Wi fii Parcelles Assainies lëkkalee activité am organisé organisé le président meeting de kon li ma bëgg wax waa département de Dakar yëpp mooy dafa am liggéey bu ñu woon yaa six mois ci gannaaw liggéey nag bu fi gën bu lekk liggéey mën ko tàmbale ci anam yu rafet dem ba ca digg ba taxaw moom ak nga bañoon a tàmbale ñoo yem te xam ngeen ni ñu démarré yaa six mois mooy lu fi jëlee Macky Sall définitivement loolu la ñu tàmbaloon moo tax moo tax bu loolu bu dee dañoo commencé yaa six mois département Dakar yëpp posé premier acte bi nga xam ne mooy annoncé départu Macky Sall bu dee nag dañoo ñëw six mois plus tard ñu ne département Dakar tombé na encore ci Macky Sall dafa mel ni test ñu defoon yaa six mois gëmuñu ko noonee ma ko waxee ci département Dakar loolu laa ko waxee fii ci commune de Parcelles Assainies parce que nag Parcelles Assainies mooy premier poids lourd ci département de Dakar. ba fi ñu toll nii Parcelles Assainies lenn la xamoon ci politicien mooy ay nit yoo xam ne dañuy dem tekki xaalis yi réew mi yor seen milliard pour ñu leen jënd waa parcelle. xam nga xam nga. am na mooy xeetu politique bu salté nga xam ne da jënd ba jënd imaam yi wala ñenn ci ay imaam ba imaam mun a taxaw ne lii de yow yaa ñu ko jaral foofu nañu jëndi sangam foofu jëndi sangam parce que xam nañu ne xaalis lañ koy jox. waaye yéen waa jeunesse du Sénégal yéen les femmes du Sénégal yéen kenn ngeen jënd kenn ngeen jënd ay milliards yoo xam ne kenn du la wax fan la jëlee ñun ñëpp xam nañu fonctionnaire bu am ay milliards man de nekkoon naa fonctionnaire am ay milliards wala ay milliards ay milliards bu jënd Parcelles Assainies ay milliards bu jënd département de Dakar moo tax liggéey bi jàppoon ñu yeggati ko premier acte moo newoon élection locale deuxième acte mooy dimanche pour élection législative troisième acte mooy février 2024 ñu taxaw moo tax nag moo tax nag li ma leen di ñaan li ma leen di ñaan mooy dem leen déglu ci suñu électeur yi. loolu nag c'est important. pour jëlee bu ñoom carte électeur la ko dem jëli. su ko jëloo la ko dem jëli. parce que carte électeur moo fi jëlee Macky Sall. xeex si mbedd am na ñoo bëgg dimanche six heures du matin six heures du matin bureau de vote yëpp na ngeen ko présidé bu doon sama sama sama ñun ñëwee askan wi suñu maqaama ay yëngu ci ndigal dañuy waxtaan ak yéen rek xam nañ ni ay nawle lañu suñu diggante ñu ak yéen. li ma leen njëkk a ñaan lu ma leen di ñaan li ma wax léegi même su doon taw parce que xam ngeen ci nawet la Sénégal dafa xaw a ragal taw même bu ñu réew mi taw lu continue taw na Sénégalais yi génn massivement dem voter parce que parce que ce taux de participation dama leen wax ne wax ñaan naa leen dem naa la communauté ñëpp na fekk ñu déggee message bi après ñu continuer animation bi ma leen ñaan su ngeen ma mayal ma wax rek ñu dégg message bi dama ne xam ngeen ci nawet lañu nekk te Sénégal yi bëri ñoo xaw a ragal taw waaye nag nañu xam ni Benno Bokk Yaakaar Macky Sall lenn moo ko mën a arrangé mooy taux de participation bu faible bu taux de participation bi faible musiba dina am parce que moom lu muy jox xaalis bu ñu ko te ñoom bu ñu jël dem boole bi gis ngeen li ñuy def ak ñenn catégorie tey ñenn ñu ko war a retraité nee na tey recevoir na résultat yi nee na jox na leen trente milliards ak beneen vingt milliards sama tuuru mag ñi nga bëgg la mag ñi donc pourtant mag ñi ñu ngi souffrir depuis boobu de seen pension bi ñu ko jot à l'heure pension bi ñëw na mu xaar ba mu des ñeenti fan ci élection bi bu ma wane naan dara ñu saxal dara waaye bu yaakaar ni mun naa ndax Sénégal yi wala day ndax lu moom la ko waaye li ma bëgg a wax rek mooy ak li mu jàmm la treize élection la ministre nga ko yéen ñi jël yéen ñi rek la treize élection yéen ñi rek mat soixante pour cent de la population soixante cinq pour cent de la population dafa am loo xam ne ci yeewu na Sénégal xam nga ñun suñu plus grande situation rek la ñun suñu émission si nguur gi sax gannaaw suñu plus grande satisfaction mooy. boo tourné rek da ngay dugg incha allah sànq ba tey damaa daw ba sonn yaa ngi yaa ngi sànq ba tey damaa daw ba sonn boo tourné rek damay parce que ñun. yow borom camion bi nag xam nga maa rey. dinaa nga ko def bu yàgg. dama ne ñun. li gën a taal suñu xel. li ñu gën a am satisfaction xam ngeen lan la mooy d'avoir réconcilié la jeunesse sénégalaise avec la politique loolu nag bu ko parce que gars yi dafa am lu ñu réussiroon dañu fexoon ba gëmloo jeunes yi yéen politique seen yoon waru cee nekk moom dem leen pour bëri naan leen attaaya suñu waxee ne ah ñu réussiroon ñoom ñu toog nag gàncax di seetloo xaalisam lu nga ñu def ko moo tax tey réew mi toll mu toll nii. ñun nag bi ñu paree waxtaan ak yéen ba léegi gën a dal suñu xel mooy dañ leen di boole wax ak politique ñun bu ñu leen mës a wax président bi ñu leen loolu loolu kenn ku nekk def walla moo tax ñun liñ leen laaj rek mooy seen walla xam ngeen lan la suñ leen wooyee wuyu leen ñu suñ leen ñu nag woowu ñu leen pour ngeen génn manifeste woowu leen pour ngeen jàmmarloo alkaati yi woowu ñu leen pour ngeen jël risque dañ leen woo pour ngeen génn massivement yàlla xam na ni si tous les jeunes sénégalais sortaient pour voter quel que soit mag ñi au premier tour la ñuy régler problème bi ak 18h waxtu bi am waaye nag bu dee ñun am nañ jeunesse bi wëratu di gis ni mag ñi ñu ci ëpp léegi comprendre nañu enjeu yi ñëw ànd ak gën kon Macky Sall ne peut pas gagner ces élections c'est pas possible pour ngeen may may ma lancer un appel parce que tey ñu ngi fii Parcelles Assainies fii biir Dakar bëri na commune yoo xam ne teguñu fa tànk biir Sénégal dina bëri département yoo xam ne duñ fa jot a yegg waaye li may ñaan Sénégalais yi li may ñaan militants yi li may ñaan sympathisants yi gis ngeen li ñuy xeex ñun dafa ëpp doole ay yenn détails yi ay ñii ñëwuñu fii ñu mer nañu ñëwuñu fii dañuy pour sanction ñëwuñu fii dañuy gert loolu ku gëm Sénégal di ko ñun suñu yéene bu ñu sañoon waxuma la chaque département waxuma la chaque commune waaye chaque quartier sax dañ koy waaye quatorze jours campagne xam ngeen loolu xaalis yi léegi ñu ngi taw bii ñu taw la dañuy dem nag kon un patriote un citoyen patriote un militant bu gëm waroo nekk fii naan sama commune damay gert dugg nii sama département damay gert loolu dafa fekk Sénégal moo ñu jóg ay affaire personne taxu ñoo jóg Massamba ñëw na ma dem ñun ko fay woon ko fay lu ñu mënoon yëpp ko xool leen leader kenn amatul ci quoi démb xam ngeen ban heure la ñu egg ñu paree Saint-Louis quatre heures du matin la ñu ci yoon bi neuf heures la si Dakar quinze heures commencé nañu caravane kon fu ñu H&M, wala dugg ñu Yoff wala dugg ñu Grand Dakar dafa fekk programme bi mayew ko temps bi ko waaye parce que dañoo xeeb waa kon li laan ñaan ci mboolem sympathisants mboolem militants yi nañu jàpp ni nañu seen commune nañu jàpp ni egsi nañ seen département parce que yéene bi egsi na foofu nañu takk seen ndigg à commencer par ñu teew fii ñetti ban moo des ci campagne bi ci ñetti fan yooyu la ñuy yi bu gars yi seen tànk de da a dëgër gis naa leen ñoom envoyé ma benn vidéo ma gis leen dugg ci biir Parcelles Assainies mu mel nii waa dafa ne waaye dafa ne xam nga affaire bi affaire bi dafa neexoon quoi non affaire bi dafa neexoon waa ji nee na gars yi dañu meloon ni police bi yor convocation dugg ci koñ di laajte ba mu laajte ñu ne xaw ma waa ji liggéey di bëgg biir parcelle yor seen ngandi moto baat bi baat moo xaw a tee dafa am benn dafa euh, dañ ko dañ ko ngéntewaat démb da doon egsi gars yi ko maître Abdal sa tur mooy Alioune Pierre Ndoye dama kontaan ci yéen parce que gars yi bi ma gisee seen i oto c'est ma gis ma gis Birame Mbaye Ndiaye café ba muy romb xam naa benn booy di ko tooñ ko Mbaye Ndiaye yaa ngi mu ko walaay maa ko gis ngeen nag gis ngeen noonu ñu dama bëgg dimanche dimanche seen bulletin ñoom noonu ñu wéetee dañuy romb yoon seen bulletin bu ko raw laa bëgg mu wéetee ci biir gër yi te moom laa leen seen participation mbokku Dakar mbokku Dakar xam ngeen lan mooy enjeu déedéet xam nga li ma doon leen wax li ma doon wax léegi soxna si loolu nga wax bu ñu doxalante waa parce que dañu ñëw fii ñu nit si ma ba léegi lekk ñu naan ñu dégg ma rek xam ngeen mbir mi lépp xaju ci lépp xaju ci mbir mi kon mooy yéen waa Parcelles Assainies yéen waa département de Dakar est-ce que bëgg wala xalaat ngeen sax Macky Sall déposer troisième candidature. est-ce que waa Parcelles Assainies 760 milliards 760 milliards yi Macky Sall wax ni def na ko ci inondation yi te tey su tawee bëri na ko loolu loolu loolu ñëpp xam nañ ko ba noppi waaye ñu ne porte la nga wax ko mais mais xam ngeen ni li ma bëggoon wax foofu mooy est ce que bëgg ngeen xam sept cent soixante milliards yi fan la dëkk est-ce que bu ngeen xam ni milliards yi mën a def la ko ci Covid bi fan la dugg est-ce que bëgg ngeen ceeb yi wàññeeku fii ci Sénégal xam ngeen ceeb cher na dugub cher na essence cher na ciment cher na gaz ma boole ci géej mu jaay pétrole ak gaz mu jaay zircon bi mu jaay phosphate mu jaay ak surfacturation yi BRT yi surfacturé ko TER yi surfacturé ko lépp lu muy def surfacturation est-ce que bëgg ngeen loolu yëpp émission yi lii mooy enjeu émission yi moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu ngi leen di ñaan gannaaw bi ngeen gërëmee parce que ñun mënuñu leen fay lii ngeen di defal nii benn homme politique mënu ko am benn coalition mënu ko am yàlla rek moo leen mën a fay yàlla leen fay waaye bu ñu fàtte ni dañoo am un projet pour le Sénégal projet boobu dépassé na la personne de Ousmane Sonko dépassé na la personne de tous les leaders que vous voyez là bu ñu ko dara yàqal bu leen kenn détourné nañu commencé nañu yeggale liggéey bi deux mille vingt quatre ñu jëlaat suñu réew teg ko mu gën Qatar ba mu